dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen a kaay ñu xëyandoo ubbil yéen a kaay gi di réew mi quotidien mu xëyti ñu xamal na ñu agression yi nga xam ne ma ngi ci réewum Sénégal jamono ji nag ma ngi mel ni tulleeg male Sénégal gis nañ fi pétrole gis nañ fi gaz waaye nag gis nañ fi ay musiba maba kumba ay njaaxuma ay tojaanga yu doy wara jamono ji askan bi nag du ñu nelaw ba yandoor ñi nga xam ne ñooy kilifa yi rawatina Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne moom lañ dénk kaaraange réew mi moom nag jamono ji war naa gën a mën a jël ay matukaayam ci wàllu wi Sud Quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu njaboot gi nga xam ne ñoo bàyyi ko wan ca diwaanu Amérique te ñëw ci Kaolack te ay Samba booy songu leen ba daal di fay faat nit koo xam ne ma ngi wuyoo si turu Mohamed loole nag daat nay mer lool lool ñi nga xam ne ñooy waa Medina Baye ñoom nag ñuy sàkku ci nguurug Sénégal mu wane ci fulla ak fayda ba teg loxo ñi nga xam ne ñoo def googale ñaawteef yéenekaay gii di L'As mu ñu xamal naan ñu ñi nga xam ne ñooy américains yi ni ki démb daat nañu yabal ab fi nga xam ne maanaam mooy Kaolack ba pare nag di ñaawlu mbir mi ba pare di sàkku nag maanaam dossier bi daal di leer naññi yéen gi di réew mi quotidien mu ñu xamal ñu en tout cas li nga xam ne moo am ba des jamono ji ci Sénégal mooy nag mbirum banditisme gi wayu gi maanaam ma ngi jaaba jonge ci réew mi te nag dafa daj réew mi kàpp ndax fi nga xam ne mooy Touba ay Samba boy ñoo fa agressé ay nit jam leen nag ay paaka ba ñu mujj nag daal leen di rawale yéen mu ñu xamal ñu en tout cas li am ba des mooy jamono ji kilifa yi nag war nañoo gën a mën a jël seeni matukaay boo demoon nag fi nga xamante ni maanaam mooy ca région bu Tamba Aaron arrondissement bu Keñeba foofe nag ay samba boy ñoo fa doon tiirante di fa joxarbante ay balu fetal ak ñi xam ne ñooy waa gendarmerie mu ngi ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien ba tey ci biir journal bi di sud quotidien mu daal di dikk ci lu jëm ci wàllum njàng mekk mi ak waa G7 gi nga xam ne ni ki démb nag nañ seen doole dëggantaana ci doxum ñaxtu bi nga xamante ni doon nañu ko amala ñoom nag li nga xam ne moo leen naqari mooy accord yi nga a en tout cas jamono ji mënuñoo wax ne waa set 7 dañoo ërtal nguur gi ba Macky Sall jamono ji muy sàkku ab dialogue ca wàllu woowa ñi nga xam ne ñooy waa CUSEMS ñoom nag démb sa ndaje ma la ñu xam le bëri na ay jàngalekat yoo xam ne jamono ji ñoo ngi faatu ndax ñoom ñëpp dañoo feebara nguurug Sénégal nag tamu na wax leen loo xamante ni du sa def dara yéen a kaay gii di source a mu ñu xamal lan ñu am na ay ministre yoo xam ne daal ñoom la ñuy jox xar bi baaraamu tuuma ne ñoo waral nag mer mi nga xamante ni jàngalekat yi mer nañu ko ka ca njëkk di Abdoulaye Daouda Diallo ak Mariama Sarr ak Mamadou Talla ak ki nga xam ne mooy Abdou Karim Fofana ubbil yéen ak ay gii di las ak enquête mu xëy di ñu xamal ñu collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag fanweeri fan ak benn ci weeru janvier dañoo bëgg a amal ab doxum ñaxtu ngir nag lu jëm ci courant bi nga xam ne dañu ko daal di yokku ñoom sax waa collectif bi dañoo njort ne France ci boppam ñoo nekk ci ginnaaw tëj gi nga xam ne tëj nañ ko Guy Marius Sagna waa collectif bi na aha ñoom li ñu njort daal mooy France moo nekk ci ginnaaw yéen kay gii di mu ñu xamal lan ñu en tout cas li am ba des jamono ji parti mooy APR sorewut ak sabar gu tas waaw parti bi jamono ji dafa pëccëxoo tax njiitu réew mi di président Macky Sall tey ji nag daat nay woote ab réunion de crise yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy di wax ne ñi nga xamante ni daal ay góor jigéen lañ di ay sénégalais di ay mauritanien ñoom nag ñoo doon takkante ca diwaanu Mauritanie journal bi nee na ay ñaawtee fi neen waaye nag police daan na leen di teg loxo yéen a kaay gi di Sud Quotidien moom daal i xëy ci ger gi nga xamante ni maanaam bëri na lool ci réew mi journal bi nee na ger gi ak naqaree lijjanti Moussa Sarr quotidien moom nag la mu xamle nee na askan bi yëpp daal ñoo si war a dugal seen loxo waaw bu ñu bëggee mbir mi nag daal di lijjantiku Babacar baa mi nga xam ne moo jiite forum justiciable moom nag la mu le nee na tànk daal ay rapport ñoo ngi koy jël di ko dugal ci ay tiroir ba pare ay corps de contrôle yoo xam ne du ñu joxe rapport ger gi nag saa suñu xëyee day gën a bëri ci réew mi boo Bocoum moom dafa daal di joxar bi baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi Thierno Bocoum ne waaw ndax nag lépp loo xamante ni xew na si ñoom ñoo ko waral wane wu ñu fulla wane ci lépp loo xam ne jëm na ci xeex xeex guerre ci réewum Sénégal waa grand place ne mbir mi kay dafa daal di doy waar te ndax dafa mel ni Macky Sall ci boppam maanaam dafay encouragé di dooleel ñi nga xamante ni daal joxar bi nañ leen baaraamu tuuma ci mbirum guerre xoolal Cheikh Omar Anne mi nekkoon kuddu Pape Siré Dia mi nekkoon poste ak Aliou Sall mi nga xam ne rakam la Dakar Times mu ñu xamal ñu kon daal maanaam ci gàttal Sénégal ba léegi nii nekk na am réew moo xamante ni ger nañ ko loola ndax nag mbir mi ger gi est-ce que nag ñi nga xamante ni ñoo yore wàllum yoon ci réew mi maanaam justice est-ce que moom nañ seen bopp libération yéene kaay mu ñu xamal lu jëm ci Adama Bictogo mi nga xam ne moom lañ waxoon ngir mu tabax ab université sa jam ñaajo te deful dara te décaissé woon li nga xam ne mooy toll ci trente milliards est-ce que nag jotul ñu daal di ci ubbi ab enquête waa forum civil ñoom nag loole la ñuy daal di sàkku yéene kaay gii di sunu làmb daal di xëy nag daal di wax ci Modou Lo Ama Baldé gi nga xamante ni ñu bari jàppoon nañ ne combat boobee daal nay tàbbi maanaam yàq na Luc Nicolaï mi nekk ci kasu bi moom nag daat nay wax ne combat boobee dina daa di am stade yéen a kay xëy nag di ñu wax loo xamante ne daal neexut a dégg benn yoon rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ca Liverpool Sadio Mané ni ki démb moom moo am ab gaañu gaañu ba mujjee génne terrain ba loole nag jaaxal lool waa Liverpool la.